wa ala alihi wa ashaabihi dawi lfadli waltakrim radi allahu an cheikhina ahmad attijaani wa an saairi muqaddamihi wa xulafaihi ridan yacumu ljamic wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh gannaaw bu ñu santee borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne huwa ahlu lthanaai walhamdi walmajd ñaan ko mu wuutuñu jullit ñu ci yant yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak mbooleem ay saxaabaam ak taabiina yi ak ñu topp seen njub bés pénc ñaanal ngërëm suñu wasila ci yàlla cheikh saydi ahmed tijaani mbooleem mi muqaddamam ak xulafa om yépp ñu ngi wax mbokki jullit yépp asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa fa tabaarakallahu ñu ngi nekkoon ci téere bu màgg bu barkeel bi suñu woy jur suñu sëriñ def suñu soppe mawlaana alxaaji omar ibni saidin alfuuti attoorawi algadawi ñu koy wax rimaaxu xisbi rahim ala nuxuuri xisbi rajim mu doon téere bu barkeel lool bari lool ay jàngale yow mbokk jullit mi ñu topp di nga ci gis inchaa allahu lu yaatu ci xeetu xam-xamu sharia yu ci sëriñ bi yaatal ak xam-xamu xaqiqa <coughs> moom xaaj omar li mag ñi di wax rek ne dafa dund turam moo ko dal ndax da daan wax ne nan laa tudd ñu ne ko umaru mu ne umaru ayin la ak miim ak raa incha allahu dana mel noonu umaru mooy firi une vie umrun mooy une vie waaye moom non seulement vivre na mais revivre na xol yëpp ak jëmm yëpp ba xam-xamam tey li waxoon ne ala maayo duma dee euh, loolu dëggal na ko parce que xam-xam bu toll nii ku ko jàngale doo dee héritage bu toll nii ku ko jàngale deewoo kon li waxoon ne duma dee moom ci boppam ak dund lay firi moo tax ñu wax ne bokk na ci nitu yàlla yi nga xam ne am nañ particularité di dund ba tey ndax dañu naan ci maa ul xayaat maa ul xayaat nag ku ko ku ko am dund beneen bi mooy ayin bi muy umaru bi nee na ayin bi yàlla xamal na ma ne dinaa dund soixante-dix ans ci yéen muy adadu kun te bi li siiw ci dundam mooy ku ne xam na ne dix-huitième siècle trois ans la fa dund muy 1797 1797 tabaarakallahu trois ans la dund foofu dugg 1864 lañ ko gëj a gis 1864 tabaarakallaahu boo ko boolee ñetti at yële arrondir ko ba ñeent muy doon soixante dix yu mat sëkk diggante soixante neuf ans ci atu euh, solaire soixante dix ans ci atu lunaire moom la cheikhu dund radiallahu anhu ci li fës mim gi mu wax ne yàlla jox na ma ndigal ci taxawal jihad dinaa def quarante attaque ku ne xam na ne nag ku sa dund soixante neuf ans wala soixante dix ans def quarante attaque loolu xajul ci dund googu ndax bu dee mine de rien avant nga am trente ans def nga maanam commencé goo jihad ji quarante ans yi ci des ci nga ko def kon minimum quarante ans yi année bu ne yaa ngi ci jihad te année bu nekk ku ne xam ne ku ne xam ne jihad avant la pendant et après loolu rek mën na jël deux ans wala trois ans. kon ku ci def 40 attaque te bokkul ak saraya yi muy expédition yu ndaw yi mu daan def da ngay yëg nekkoon dundam yëpp ci jihaat la ko def raagi mu wax ne mokkal naa ñaari téeméeri téere 200 livres 200 livres nag ku ko mokkal ba ñu ko lakkoon nga mën a bindaat livres yëpp te livres yi muy continue l'islam kooku kon kéemaan la euh, ba tax na kon Mawlana Alxaaji Omar doyoon na ci rek mu taalif benn téere muy wax rimaax ñu wane xam-xamam te boo koy jàng da ngay yëg ni mu maîtriser texte yi radiallahu anhu tey nag mu ngi jëm ci faslu euh, althaalisu ashar fi iclaamihim annahu laa yasilu saaliku nnaasiku ila xadrati llah wa xadrati sifaatihi wa asmaa'ihi walaw jama culuma alawalin wa saxiba طوائف الناس وعبد عبادة الثقلين إلا على يدي أصحاب أهل الخاص فأقول وبالله التوفيق وهو الهادي مني إلى سواء الطريق tey mu ngi jëm ci trois euh, treizième fasle bi treizième fasle bi muy treizième chapitre bi nee na dafa bëgg a jàngal nit ñi ne nit loo baax baax loo bëgg a bëgg a dem ci yàlla loo man man jaamu yàlla mënoo yéeg ci xadratullah muy xadratul ilahiya wala nga yéeg ci benn instance ci xadra céleste yi moo xam xadra sifaat yi la wala xadra asma yi ay département la ci xadratu yàlla yi nee na nit mënula efficace ba yéeg ci yooyu walaw jamaa doonte dajale na ulumal awwalina xam-xamu ñu njëkk ñëpp maanaam téere yëpp boo ko jàngoon wa saxiba tawaifa annaas sëriñ sëpp nga ànd ak ñoom wa abada ibadata thaqalayni di tëju xalwa di jaamu yàlla jaamu yàlla gu équivalent wu ak jaamu yàlla mbindeef yépp du tax nga mën a accéder ci xadara yooyu illaa ala yaday iznil ashaabil xaas lu dul nga tegu ci loxo boroom ndigal yu mag yi maanaam kon ndekete naafila ba yegg ci yàlla wala wasifa wala maanaa di yor benn sirru ñu ne la lii maam diw moo ko yoroon nga nekk ci di jaamu ba dugg ci xadara yàlla mënul nekk maanaam yàlla moo sécuriser xadaraam ba ñi mu jox ndigal rek ñoo fa mën a yóbbu euh, euh, borom maanaam seen njaboot loolu nag defe naa matoon naa xam ndax ku foog ne jaamu yàlla gu metti mooy def nit waliyu Euh, déedéet li gën a gaaw ci def nit wëli yu mooy ànd ak te loolu wér na ndax dëkk boo xamul fu mu situé wu xamoo ci quatre points cardinaux yi fan la ci situé wu nga ne man daal am naa cawarte am naa énergie am naa temps dinaa wër dëkk boobu ba xam ko jombul sa dund mën na jeex te doo yegg ci dëkk boobu mu mel ni nag ka ànd ak ka fa xam euh, un cinquième ci sa physique bala koo daj yegg foofu kon nga xam ne ndekete dem ci yàlla daal bi ci gën a gaaw Cheikh Omar nee mooy nga ànd ak borom ndigal ñun nag sant nañ yàlla ndax ki joxe ndigal li lañu àndal mooy Seydi Ahmed Tidiane mu wax ne qaala allahu taala huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa diini alxaq li yudhirahu ala diini kulli qaala sanna sunnatan azaliyatan laa yajidu axadun sabilahu illaa man yuqayidu llahu lahu e, ustaadan aarifan billah wa bi sirri diinihi wa rububiyatihi fa yadulluhu min minhaaju ubudiyatihi wa macaariju ruuxihi wa qalbihi ila mushaahadati rububiyatihi wa yakunu huwa waasitatun baynahu wa bayna allahi taala wa in kaana alfadlu biyadi llah yuuti man yashaa bi gayri cillatin wala sababin jacalahu wasitatan litaddubi la litaqrib wa sayarahu shafian liljinayaati la sharikan fi lhidayat hadaahu nuuru lquran wa diinuhu xaqiqat albayan maca idhaari alburhan wa qaala cheikhna ahmadu tiyaani radiallahu anhu iclam an allah subhanahu wa taala jacala fi saabiqi cilmihi wa nufuudi mashiatihi أن المدد الواصل إلى خلقه من فيض رحمته يجري في كل عصر مع الخاصة العليا من خلقه من النبيين والصديقين فمن فزع إلى حضر إلى أهل عصره الأحياء من ذوي الخاصة العليا وصحبهم واقتدى بهم واستمد بهم فاز بنيل المدد الفائض من الله تعالى wa man acrada an ahli casrihi mustagniyan bi kalaami man taqaddamahu min al amwaaji tubiya calayhi bi taabici alxirmaan wa kaana misluhu kaman acrada can nabiyi zamaanihi wa tashriicihi mustagniyan bi sharaa'ici annabiyina alladina xalaw qablahu fa yusajilu calayhi bi taabici alkufri wassalaam وقال في عرائس البيان عند, عند قوله تعالى أولئك الذين هداهم هدى الله fa bi hudaahu muqtadi qiila fi haadihi al aaya laa tasixu al iraadatu illa bil axdi min al a'immati alaa tara kayfa nadara al mustafa sallallahu alayhi wa sallam fi zumrati asxaabihi fa qaala alayhi salaatu wa salaam iqtadu billadayni min bacdi abi bakr radiyallahu anhu wa umar billadi min bacdi abi bakr radiyallahu anhuma falaa yasixu al iqtidaau illa biman saxat bidaayatuhu wa salaka suluka saadaati wa athara fihi barakatu shuhudihim barakati shuhudihim ala tara almustafa sallallahu alayhi wa sallam yaqulu tuuba liman ra'ani faaza man athartu fihi ru'yati qaala saaxili fi bu'yati saalik inna almaqsuud alacdam min alshariicati huwa tathiiru alnafsi min kuduraati mutacalliqaati aljismi bittazkiyati can alawsaafi aldamiimati waltaxalliyati bilawsaafi alxamiidati xata tasila ila macrifati illahi taala wa hada la yakunu ila bacda macrifati nafsi wa macrifati cilmiha ala ixtilaafiha almufrad min dalika walmurakab wa macrifati aladwiyati والاغذيه ولا يحكم ذلك الا الرباني الذي نور الله باطنه بانوار معرفته وخصه باثار حكمته واطلعه على اسرار شريعته wa awqaahu ala maani alkitaabi walsunna wala yakunu dalika illa mimman salaka tariqa addin wa qataa manazil alsalikin wa taxallasa min an nafsihi an aydi waarisin axar xata saara ala bayinatin min rabbihi wa ahallahu allahu taala lihidayati gayrih wa xassahu bilquwati almuqtadiyati lidalika wa xasala lahu alidnu alsaxix alsarix في ذلك من قدرته ومهما قصر عن هذه الأوصاف فإنه معلول يحتاج إلى طبيب يطبه وربما بقى فيه من البقية ما لا يخلو من غلط فقد عرفت الطبيب وهو الوارث الكامل وقد يسمى وارثا من حصل من على بعض الأوصاف المذكورة بنوع المجاز لكن منفعته مقصورة على نفسه وقد ينتفع به القليل الخاص وأما الانتفاع الكثير فلا يكون إلا من الوارث الكامل الذي رسخ علمه وقوى عقله وطهرت نفسه وصدقت فراسته وترجح رأيه وسلمت فطنته وامتحى هواه وانشرح صدره بأنوار المعارف ونفحات الأسرار وأخذ عن شيخ وارث بهذه الصفة وأذن له وأذن له في الانتصاب لهداية الخلق بتخليص أنفسهم من علمها وهذه هي الوراثة الحقيقية فعليك باتخاذ من هو بهذه الأوصاف قدوة ووسيلة إلى الله تعالى في خلاص نفسك وطهارتها ولتمكنه ولتملكه زمام الحكم عليها من غير ارتياب ولا التواء ولا اعتراض بأن تكون بين يديك الميت بين يدي غاسله wa qad qaalu man qaala li cheikhihi lima fa innahu laa yantaficu bihi wa qad allamana allahu taala hadihi alfaida bilisharati ilayha fi qissati muusa maa xadirin alayhima alsalaatu wassalaam mawlaana alxaaji omar ci xam-xamam bu rafet bi mawlaana alxaaji omar ci xam-xamam bu rafet bi te sell radiallahu anhu tey dafa bëgg a jàngale ni yegg ci xadara yàlla dara du ko maye lu dul ànd ak ku yegg ci xadara yàlla ndekete kon tarbiya ci nit am na influence bu rëy ci sëriñ bi ngay am ak dimension walla nga ñàkk sëriñ ak dimension mu wax ne dafa boroom téere bi ñu ara bayaan dafa wax ne yàlla subhaanahu wa taala dafa ame benn aada boo xam ne nii aada bu cosaanu la la nga xam ne daanaka du def lu dul loolu te mooy lan mooy amul yéene kenn yegg ci moom lu dul daf lay orienté d'abord pour nga dem ci nitam yàlla bu bëggee ab jaam yegg ci moom li muy njëkk a def mooy orienté la nga xam nitam nitam kooku nag bis boo ko xamee ba topp ci moom mu doon boo koo xam ne oustaz lay doon ci wàllu sharia bu ko defee oustaz boobu doon aarif billah di ko xam yàlla ci niveau yu kawe kawe kawe bu ko defee kooku nag bés boo ko xamee moom moo lay jàngal kan mooy yàlla kon yàlla ci gàttal hiérarchie lay jàngale bu ko defee kooku jàngal la secret diine ji jàngal la secret rububiyya orienté la ci ban façon la yàlla bëgg ku ko jaamoo na mu gënee jàngal la ban façon voie d'ascension la ñuy yéegale ruux yar sa xol fóot ko ba mu set wecc wecc ci mboolem tilim tilimu bàkkaar ak àdduna bu ko defee nag sëriñ boobu mooy nekk sa diggante ak sa boroom donte ku ne xam na ne ngëneelu yàlla yàlla moo ko téel boppam amul benn le pourquoi amul benn sabab amul benn intermédiaire waaye moom yàlla ngëneelam boobu euh, grandeuram tax na dina ko jaarale ci loxoy xaritam yooyu jubluwu ci nag ne xaritam yooyu ñooy maye mais da ci bëgg a jublu formation pour nit am ko yàlla bu xëyoon rek jël la ñëpp jox jaamam jàmm boobu li ngay njëkk a seetlu ci moom mooy indiscipliné ndax du faale kenn ku dul ki ko jox te muy yàlla subhanahu wa bañ loolu tax yàlla dafay jël daa iman faydu ak mëdët bi nga xam ne moom lay jox ay jaamam mu teg ko ci loxo nitu yàlla yooyu ak aarifuuna billahi yooyu loolu yàlla def ciy jàngale hiérarchie ndax wax dëgg yàlla ku doon dem ci université bi jekki-jekki jël fa benn étudiant def ko directeur généralu benn société bu dee am na xam-xam itam te defaloo ko formation man nga cee bañ a am li la gënal moo tax kon yàlla ci sababam euh, ngëneel moom moo ko yor moo koy jox ku ko sob waaye def ko utal hiérarchie ba nga xam ne nit ku nekk faw benn nitu yàlla moo lay man tarbiya ba nga apt ci war a mën a mérité mayu yàlla yooyu mu soog a jël la nag sëriñ boobu jox la may googu donte ci médiation la koy jaarale mais lim ci jublu mooy mu jàngal la te ëddub la taqrib du caagino nag nooy jege yàlla parce que jàmm bu ne volume bi nga war a jegee yàlla décret boobu yàllaa koy signé kon sëriñ bi lay tarbiye yar la rek la xam moom la man waaye nag lan ngay dooni ëllëg ci sa destin du moom nekkul ci loxoom waaye dina la yar ba nga xam ne nii di nga génn ci lépp lu dul yàlla mu sóob la ci xadara yàlla ba nga xam ne doo bokkaale yàlla ak dara bu ko defee nag loolu bu amee nag ñu commencé leeru alquran ak leeru secret yàlla di commencé di taw ci sa ruux yow moom yow taalibe boobu bu ko defee nga commencé di xam loo xamul woon di yëg loo yëgul woon bu ko defee loolu doon benn lay boo xam ne nii ëllëg yowmal qiyaamati boo bëggee revendiquer sa may dina am sax seede ñu ne kii moo doon sëriñam moo ko tarbiye ba mu yegg fële loolu moo tax gis nga da ngay gis ku tarbiyewu ba yàlla ubbil ko fatxu mbooloo mu ko dikkal ak lu mu bari bari moom buy wax jaar-jaaram en l'aise la koy waxe parce que danaan ah man kat li ma am nii xëyuma rek am ko dama tarbiyewu sëñ diw ba mu ñaanal ma gërëm ma nangam nangam yàlla jox ma ay xéewal yàlla mooy joxe mais dafa tarbiyewu tey nag ku nekkoon yor sa guitare ak di musique euh, fu orchestre bu ne nga dugg fa fu ne nga dem fa ba yàlla bett la ak xéwalam jox la wilaaya xam nga kooku pour nga tarbiyew nit ñi tarbiye nit ñi day jafe ndax koo dajal mu ne yow bay barki dee ma nga doon musique fii waaye buñ ne bu dee xamoon nañ la ci ëttu nitu yàlla loo am ci may ëllëg dañ naan yéemewul ndax li mu daj ci coono nangam kon ndekee hiérarchie boobu rek la ci yàlla jublu moo tax kon nga xam ne yow mi bëgg a yegg ci yàlla noppalal sa bopp mënoo yegg ci yàlla te jaaroo ci gaayu yàlla yooyu moo tax képp ku wax ne dinaa jaamu yàlla ba yegg ci yàlla waaye sama yoon ci sëriñ si euh, yow yaa wane yow yaa yow yaa wane sa destin mooy na naroo dem loolu la borom ara isul bayan wax Cheikh Hadj Omar Fouti leeral ko Cheikh Omar ne deuxième source bi may confirmer loolu mooy waxu suñu sëriñ nga xam ne gannaaw waxam amul wax mooy Cheikh na Ahmada Tiyaani radiyallahu anhu dafa wax ci jawaahiru maani ne yàlla lu ko neex lay def ku ne xam ne lu ko neex lay def waaye bokk na ci li ko neex nee na ay mayam da koy utal protocole moo tax jaala fi saabiqi ilmihi moo def ci xam-xamam ak coobareem ne mëdët maanaam mooy énergie lumière bi nga xam ne moom lay jox ay ruux pour ñu mën a yéeg ci xadra yàlla yi énergie boobu naturellement moom yàlla moo destiné ne du ko jaare la lu dul ci borom faydu yi nga xam ne nii ñooy nekk ci jamono ju ne maanaam dafa mel ni nitu yàlla boo gis benn plan de stockage la yàlla nag buy jël ay may di ko séddale jaam yi foofu la koy stocké mu mel ni ay seko yu mag yu ñuy denc gerte gi léegi nag képp ku mu yéene ci yow benn koli boo xam ne ci jaam diw la jëm euh, day fexe ba koli boobu da koy yóbbu ci Euh, stockage bi bu ko defee nag yow xiir la yow jaam boobu yow da lay xiir rek nga gëm sëriñ boobu bëgg ko te doo xam lan la fekk sa koli moo fa nekk bu ko defee boo ñëwee ci moom tarbiyewu ko dangay ngay jekki rek yàlla jox la ko ci jëmmam nga foog ni sëriñ bee la ko jox fekk déedéet yàlla moo la ko jox euh, avec protocole boobu mu jaaral Cheikh Tijaan nee na nag loolu moo mos a doon euh, maanaam mayu yàlla ku ne xam ne Seydina Aboubacar Siddiq waliyu la Seydina Omar waliyu la waaye buñ jaarul woon ci yant yàlla Muhammad ba ne laa ilaha illallah Muhammad rasulullah loolu duñ ci mën a jot seen grade boobu. Seydina Tijaan nag nee na loolu lay mas yàlla mas di def jamono ji muy yónni ay yonent yonent ñoo fa nekkoon waaye jamono yi nga xam ne yonent yi jeex nañu itam aktaab yi ñoo fi nekk. moo tax cheikh ne xaasatul ulya min xalqihi mooy ay élitam ci jaamam toujours ñoom lay jox faydu bi nga xam ne nii moom lay moom la nit ñi di ravitaaye woo depuis nag ci profet ya muy cent vingt quatre mille ba ci aqtaab yi ba ci aarifuuna billaahi fa man fazia ila ah, ah, ahli asrihi l ahya min dawil xasati al ulia cheikh nee nag ku bëgg nag ci xéewal yooyu boo déggee koo bokkal jamono mu am ay may boo demee ci moom te yàlla rek tax wa sahibahum nga ànd ak ñoom te yàlla tax bi bihim ngay roy ci ñoom seen jëf ak seeni wax wastamadda bihim ngay tëbb ci barke kooku faasa di nga am bi naylil madadil faidi di nga am ci xéewal yooyu yàllay tuur ci jamono ji mais Cheikh dafa préciser ne ñi nitu yàlla yi nga bokkal jamono ngay mën a am loolu ku ne xam na ne ñi fekkee yonte yàlla Isa même buñ gëmoon yonte yàlla Moussa gëm googu du wérati fow ñu yeesalaat seen pas-pas ci yonte yàlla Isa ndax yonent boo fekk jamonoom ci ummatoom ngay bokk feneen foo tënku woon da ngay yeesalaat ci kii Isa itam ku ko gëmoon ba fekk yonent yàlla Muhammad euh, da nga war a yeesal sa pas ci yonent yàlla Muhammad de même que itam nitu yàlla yi koo ci koo ciy dégg ay mayam li muy baax baax Cheikh Tijaan nee na mëdët bi nga war a am wëli buy dund moo nga ko mën a amee ci moom loolu nag leeragul ñu bari te moom la olof di wax ne naaju démb manta wal wowal potum tey da ngay gis kuy sonn ci wëliyu boo xam ne ba mu fi jugee yàgg na lool jàppane ku mel ni moom du amati te fekk doo xam ne ki doon na kooku mu ngi dund waaye xeeb gi nga koy xeeb moo tax doo mën a jariñ ci kooku cheikh nag nee na non seulement doo jariñ ci moom waaye dafa am beneen risque bu ci am wa man arada an ahli asrihi képp ku wan gannaaw wëliyu jamonoom mustaxniyan ngay doyloo bi kalaami man ci waxu ñi nga xam ne taqaddamahu ñoo fi jiitu woon ci sëriñ si minal amwaati te faatu tubia alayhi dañ lay kaste bi taabiil xirmaan ci ñàkk maanaam dañuy kaste sa xol doo am dara ci leeru yàlla ñu ne lu tax mu ne parce que da nga ñàkk teggin wa kaana misuhu da nga mel ni kaman arada an nabii zamaanihi dafa mel ni ku wan gannaaw yonentab jamonoom wa tashriihi ak shari'a jam yonent boobu mustaxniyan ngaan kaan man faalew mala la doyloo naa bi sharaii nabiyina ci shari'a yi yonent lazina yi nga xam ne xalaw ñoo jiitu woon qablahu avant kii bu booba kenn du lay jàppe jullit fa yusajjilu alayhi dinañ ko bindal ci kayam al kufra ne yéefar la wasalaam xam nga inna alladina kafaru la yàlla wax ba pare ne min ahlil kitaab wal mushrikina fii naari jahannama xaalidina fiha yàlla defa ne ñi nga xam ne ay yéefar lañu ci ahlul kitaab ak mushrikuna moom mu ngi boole ñiy jaay am xërëm ak ñi nekk ci seen cadre bopp te ahlul kitaab ku ne xam ne ne am na kuñ gëm te nee nañ yàlla lañ gëm mais le fait que ñu nekk ci benn religion ba beneen yonent ñëw accepté wu ñu kooku bañ weddee kooku la ñu weddee cause bañ nekkoon ñoom seen bopp donte téere yaa nga fa cadre baa nga fa waaye nekkuñ ci dara Cheikh na Tijaan nee na itam képp koo xam ne nitu yàlla da nga bokk ak moom jamono moom ñoom ñuy ahlul xasatil ulia waxuñu la bu zaman bi rek déedéet mooy nitu yàlla yi nga xam ne ñoo ne ci jamono yow xeeb leen tax yaa xam nag yan considération nga leen xeebe ba ne da ngay dabu ji mag ñoo xam ne ni sa digganteeg ñoom ay siècle la fa dox Cheikh nee na yàgg ñi la yéen te lii dafa mel ni ñu bari bàyyiwuñu ci xel d'ailleurs moom bañ loolu moo taxoon euh, tariqam muy joxe ay ijaaza ku faatu bàyyi keneen ku faatu bàyyi keneen ndax bu dul woon loolu manoon na ne rek ku ñëw sama euh, bàmmeel boo ñëwee def tëbbu ci man rek jox naa la werd jox naa la werd loolu moom mën na ko waaye déedéet dafay joxe ay ndigal ñoo ñu di joxe ay ndigal ñooñu di joxe ay ndigal ba àdduna tukki parce que ki lay may werd kuy dund comme yow la war a doon pour euh, leer googu mën a jóge ci jëmmu banam boobu dugg ci sa jëmmu ban bi mais boo gisee rawxaaniya nangam moom ruux la mën na communiquer ak sa ruux mais sa sa yaram du am lu communiquer ak moom looloo tax ba mag ñi di wax nag sax ku tëdd gént ñu jox la benn sirru wala ñu may la werd ci ñi dundatul ñu ne la boo xëyee demal nga gisi ji muqaddam buy dund nga mu yeesal la maanaam ci cadre yaramu ban bi moo tax ñuy wax mais rawxaaniya bi moom jot nga ci euh, boo tëddee itam gënt gis nitu yàlla bu mag mu jox la benn sirru demal nga gisi ji sëriñ dem am nga ko mu jox la ci ndigal moom ci jëmmu ban bi ndax rawxaaniya bale boo ko bàyyeek euh, sa ruux muy communiqué ko mën nañ ci sotti lumière boo xam mën na la gaañi ëllëg mu ngi bëgg a jàngale daal ne kon ndekete nit daal sama sëriñ dee na doonul ngantu kenn kenn ku ne même sa sëriñ bu deewee war nga dem yees lu jiwaat ci kuy dund ndax mëdët bi wàcc ci ruuxam moom mooy wàcc ci yow te ki dund du mënati loolu euh, buñ nee nag kii dund mënatu ko ax kay mën na ko waaye yow xëy na mën nga baña am ak moom Euh, cohérence bu mu la mën a joxee lépp lumière boobu te loolu heureusement xutbul aqtaab bu ñuy wax Cheikh na Tiyaani moo wax lii kon bu amoon kenn koo xam ne taalibeem yi duñ soxla loolu xam moom la waroon a doon mais moom moo wax lii ku ne xam na ne nag Cheikh dundam ak deem benn la ndax tariqa a ngi dox te faydu bi moom moo ko yore mais dafa fekk li nit ñu bari comprendre mooy jamono ju ne dafa am ñu muy tànn moom ñu jaare ci ñoom faydu boobu ñu koy jaare ci taalibe yi ñoo ñooy xulafaaw yi ak akaabirul aarifina yi euh, loolu doyoon na defe naa jàngale Mawlaana Alxaaji Omar ba tey indiwaat araisul bayaan ne benn tafsiru quran bu yéeme la ku ko mën a am na ko am ñax ñoom ci tafsiru ahlul xaqiqa lay jàngale bi mu agsee ci situation coranique wala aaya bii di wax ulaayika alladina hada allahu fa bi hudaahu muqtadi gaa yële sama gaa yële yàllaa leen gindi muy yonent yi yow yonent yàlla muhammad nag royal ci ñoom muy maam ibrahima ak nuux ak isa ak ñooñu ulul azmi ñooñu yàlla gindi nag ba yàlla royloo ko yonent bi neena ci ngay xamee ne gannaaw yonent bi moo amul excuse baña am sëriñ pour roy kenn wa tabi millata abika ibrahim yàlla dane ko toppal sa ngiru baay ibrahim bu fekkoon amoon na kon ku war a am may ba tax bu du amoon am am sëriñ du topp kenn kan la war a doon yoon ci yàlla muhammad te moom moom lañu wax ne demal topp ji ci ngay xamee ne kon laa tasixu l iradatu illa bil axdi min al kon ci ngay xam ne kenn mëntu sóobu ci yoonu yàlla muy iraada doon muridullah lu dul da nga jëlee ndigal li ci yoonu gaay yàlla yi te nag olof sax day wax ne euh, ku la jëkk reer nag wan la reeril ndax kila la njëkk a yegg ci yàlla kay bu wanee yoon wa di am moom moo la ko war a wan mu nekk xoolal rek yonte yàlla Muhammad ak ni cëram rëyee waaye teewul moom ñu wax ko ne toppal ci sa maam Ibrahim toppal ci yonent yi gis nga xoolal saxaabaam yi li seeni may di rëy rëy yonent bi mu fi nekkee est-ce que am na dara lu mu waroon a jàngale lu mu nëbb déedéet lépp lu mu waroon jàngale jàngale na ko mais bi mu demee ba mujj dundam dafa ne dafa ne saxaabaam yi iqtadu da ngeen na ngeen roy billadina ci ñi nga xam ne min baadi sama gannaaw bu ma fi jógee boo leen ma gisatul roy leen kilifa yi fi nekk muy Abu Bakar boo leen ma gisatul am na benn maire bu ñëw ci moom yonent bi ne ko waxtaan ak moom mu ne ko nag boo fi ñëwaatee te fekkoo ma fi demal ci Abu Bakar loolu juste avant muy faatu la kon yonent bi waxul ne Abu Bakar mooy sama xalifa waaye junj na ay junj yuy wane ne yar na Abu Bakar ba doyloo ko waa muy laaj nag ndax Aboubacar dara dafa ne ci moom lu nekkul ci yonent bi ba mu naan bu ma fi nekkatul roy leen Aboubacar ah kay yonent bi moo yar Aboubacar li nekk ci bakar yëpp moo ko ci def mais dalay xamal ne faydu bi nga am ne moom la nitu yàlla di tëbb kuy dund ni moom moo ko mën a jox ndax bu doon faydu rek ak tëbbaate yonent bi bi mu faatoo xanaa la ko gën a mën mais dafa ne boo leen roy roy leen kuy dund moo tax nit ba ut sëriñ sëriñu tarbiya da ngay ut sëriñ buy dund ndax chaque année ay phénomène am phénomène yoo xam ne phénomène naturel la léegi sëriñ biy dund rek mooy mën a am information wu mise à jour jamono jooju mais boo naan yow diw mooyoon sama sëriñ te diw am cinquante ans ci barsax même boo ko euh, interpellé moom dundul loolu dundul réalité yooyu moo tax kuy wut sëriñ da ngay ut ci ñiy dund ndax phénomène bu am rek ñoom dinañu am ay dinañ apporter ay solution ci loolu te ki xës faatu euh, tëngootul ci loolu mën nga ko laaj loo xam ne sax donte ñoom xam nañ lu ne waaye du la ci mën a orienté wala mu wax la ci loolul mën a jëfi kon fala yasixu l iqtidaa kenn du roy illa bi man sax saxat bidayatuhu lu dul koo xam ne nii tàmbali gu rafet la tàmbali ci yoonu yàlla ba pare soobu sóobu gaay yàlla yi ba ñooñu maanaam impacté ci jikkoom nitu yàlla ku yàgg nekk ak moom da ngay dem ba doon moom rek presque mu ne xanaa xoolal yonent yàlla muhammad xanaa xooloo ko mu naan tuubaa li man raani texe ñeel na ku ma gis ndekete kon gis nitu yàlla rek dafa am ay bénéfice yu ci nekk ndax nee na képp ku ko gis moom yonent bi dafa am lumière buy dégagé wu ci ruuxam ak ci yaramam bu dugg ci sa yaram nitu yàlla itam buy tarbiyawaate itam noonu lay mel fekk yaa ngi dund ak moom di ko gis di jullee ndoog moom di wooro ndoog moom di wasifa ndoog moom dafa am ay lumière yu muy dégager muy ñëw direct ci sa jëmm fekk bu dundul woon du mën a def lool moo tax imam saaxil yi wax na ci buriyatu salik Cheikh Omar nee na imam saaxil yi wax na ci buriyatul maqsud ne al maqsudu al azam min alshariati huwa tathiru nafs Euh, sellal bakkan mm, mm. sellal bakkan ah, sellal bakkan dafa bokk ci li nga xam ne nii yi nga xam ne nii dafay sellal bakkan min kuduraati mutaalliqaati aljismi bi tazkiya an al awsaafi aldamimati wa taxalliyati bil awsaafi alxamidati xata tasila ila maarifatillah dañ wax ne e, bakkan dafay soxla ko sellal ci xat-xat wala tilim-tilim yi nga xam ne nii dafay tilimal ruux Euh, bu ko defee bu boobaa mu teg ko ci tabaarakallahu ay jikko yu rafet yoo xam ne dina ko sellal baaxal ko ba képp ku ko gis dina xam ne kii ku sell la ku baax la nee na loolu nag li koy man ba mu bu bu tilim tilim yooyu dañee dana dem ba yegg ci xam yàlla xamin goo xam ne nii maanaam lu jamono yàqu-yàqu moom dana ci xam loo xam ne bokkul ak ki melul noonu li muy xam werante googu nag euh, li koy li koy def ci moom mooy ñu dindil ko tilim tilimu ruux yi muy dunde lumière te laa yaxkumu dalika illa rabbaani alladi nawara allahu basiratahu batinahu bi anwaari maarifatihi te xaji omar nee na loolu kenn du ko man lu dul rabbaani yi nitu yàlla boo xam ne yàlla sellal na ruuxam euh, setal ko baaxal ko ba mu àgg ci garaat yi gën a kawe moo tax wa talaahu ala asraari shariatihi wa talaahu llahu ala shariatihi euh, yàlla découvrir la ko mboolem xaqaa'iq yi nga xam ne ci sharia moom lay découvrir Euh, xam naa mbokk jullit yi ñu topp ñu ngi leen di seddal ne ñu ngi jàngale jàngale Mawlana Alxaaji Omarul Fuuti radiallahu anhu yàlla terale ñu sëtam teew fi léegi ñu ngi koy wàcc wàccuwaayam di ñaan yàlla yéege ko ci ma maamam Cheikh Alxaaji Omar nee na nit pour mu defaru pour mu sell faw yàlla boole ko ak nitu yàlla boo boobu nga xam ne moom lañuy ñuy wax rabbaani nga xam ne yàlla raxas na ruuxam sellal ko ba mu set kooku rek moo mën a impacté ci defar jëmmu nit kooku wattalaahu llahu ala nitu yàlla boo xam ne yàlla fe euh, découvrir loo na ko mboolem secret yi ne ci sharia mu yéegal ko ci maanil kitaabi wa sunna muy ay instance yu kawe kawe ci alquran ak sunna wala yakunu dalika illa liman salaka tariqa ad diin mais loolu nitu yàlla bi koy mën a am nga xam ne mooy tarbiya jaam bi ba mu àgg ci yooyu dimension du kenn lu dul ku yàlla sellal baaxal ko ba mu set wa qataa manazila saalikin mu soobu yoonu gaayu yàlla yi wa taxallasa min nafsihi yar boppam ba pare ci boppam ala aydi waarisin aaxar ci beneen sëriñ moom it maanaam li olof di wax ne ku doon loo doonul taalibeem doon ne nekk sëriñam maanaam sëriñ bi lay mën a defar yow Cheikh Omar nee na ba nga baax faw moom it beneen sëriñ moo ko defar ba moom ba mu baax moom itam mu mën laa defar yow ba nga baax euh, nga xam ne kon nit doo xëy rek ne diw mooy sama sëriñ déedéet da ngay xaar ba gis koo xam ne moom it defar nañ ko ba pare ci moom bu ko defee kooku bu la defaree bis bu paree ci yow ñëpp xam foo àgg xata saara ala bayinatin min rabbihi nga dem ba àgg nag ci clarté lumineuse boo xam ne nii ci sa borom dara du la échappé ti parce que ahlul yar nañ la li hidayati gayrihi ba nga mën a yar keneen wa xassahu bil quwati almuqtadiyati bu ko defee yàlla sol la euh, force mystique boo xam ne nii wa xasala lahu l izne saxiix nga am ndigal pour former ay nit wala demee ci fonction publique dañuy tere kuy ubbi benn établissement te amoo ci autorisation waaw waa moo tax ci wàllu éducation mystique ñuy gis nit ku war a éduquer te amul autorisation mystique mënul ànd faw mu am autorisation mystique kooku nag ki koy joxe mooy borom bi subhanahu wa taala jaare ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Omar nag ne bés boo amee sëriñ bu mel noonu effectivement mel na ni presque yegg nga boo ko amul itam yaa tardeel sa bopp wa mahma qasura an hadihi al awsaf fa innahu macluulun yaxtaaju ila tabibin yutibbuhu bés boo ñàkkee nag sëriñ bu mel noonu nga xam ne amul autorisation d'ailleurs kenn yaru ko wala moom baaxagul wala kenn tarbiyewu ko kon yaa ngi bëgg loo xam ne nii ki nga koy wut ci moom amu ko bu boobaa yow yaa tardeel sa bopp parce que yaa ngi feebar ba pare dem ci ku la gën a feebar ne da nga bëgg mu faj la ba wattul yeneen i jàngoro la lay la lay jox yoo xam ne nii dalu la woon wa rubama baqiya fihi min albaqiyati maa la yaxlu min galatin faqad arafta altabiba wa huwa alwaarisu alkaamil ndax kooku nga xam ne moo la gën a feebar Cheikh Omar nee na boo fa demee pour mu faj la dana jaxase médicament yi ba indil la fa yeneen jàngoro yoo xam ne nii sax indiwoo ko fa woon léegi kon sëriñ bi nga war a am pour mu war a mat sëriñ mooy alwaarisul kaamil mooy ki nga xam ne moo doon yonent bi ci tous les niveaux kooku la ñuy tuddee alwaaris almuhammad yi képp ku am melokaan bii nag ñu tudd ci cadre majaaz euh, yow yaa doon koo xam ne mën ngaa jariñ nit ñi wa qad yantafiu bihi alqalil alxaas kooku nag tabaarakallahu nit ñi mën nañoo jariñu ci moom jariñu ju limité waaye jariñu ju yaato yaatu nag kooku kenn rek moo ko man mooy ki donn yonent bi à cent pour cent nga xam ne am na maqaamu sharia am maqaamu euh, xaqiqa set ci biir set ci biti yàlla sellal xalaatam ak yiwam rafetal jubluwaayam ak xelam nga xam ne ñooñu la ñuy tudde les xalif généraux wala xalifatullah fil ard wala qutbu zaman ñooñu nag jamono ju nekk ñoom la yàllay jox lumière bu yaatu boo xam ne nii masse sociale bi yëpp ñoom mën nañoo wéeru ci ñoom te du leen wàññi dara waaye ku dul ñii nag boo ci amee juróom-ñaari taalib bi bari na ndax la ngay amee loolu lay toll. bu ko defee Cheikh lii mu cité ci jamono jii dafay mat di xam lool ndax ñëpp a ngi wuti ji sëriñ waaye ndax ka ngay wuti ji mën na laa jëlee fi nga ne ku ne xam na ne ku doon ut emploi. yaa ngi yaakaar koo xam ne yaa ko yaa moo la tane pour mën la jox loolu mais boo gisee ne tanew la rek da ngay yëg ne boo ci duggee itam ci beneen jafe-jafe ngay nekk yàlla na yàlla defal ñu tawfiq bi max di mahdi fadlihi wa juudihi lii nag mooy wirasatul xaqiqiya kon bis boo amee loolu maa ngi lay dénk nga jël kooku def ko sa kilifa def ko sa sóobuwaay ci yoonu yàlla mu laabal la ci biir ak ci biti ndax moom rek mooy mën a ame sa nos yóbbu ko te du la yóbbu ci ay dut du la yóbbu ci jaxle jaxle du la yóbbu ci kenn waaye bés boo wëree kooku jafe naa gis nag bés boo ko wëree ba gis ko doonal néew ci kanamam nga mel ni néew ak ku koy sang ku ne xam na ne néew ak ki koy sang tabaarakallahu néew bi amu ci choix naankaan sottil fii ndox mi wala sotti fii bul laal fii danga may gaañ déedéet dafa mel da ngay mel ni Seydina Xadir ak Muusa nga xam ne amul choix ci boppam lu dul fa tabaarakallahu bàyyi yonte yàlla euh, euh, euh, Seydina Xadir mu di ko doxal li mu bëggoon loolu boo ko xësee am rek da ngay noppalu yàlla nañu ko yàlla xéewale fa tabaarakallahu nga gis ni kon wa fi l anwaari alqudsiyati fi luhudi almuhammadiyati xukmu cheikh fi sulukihi bilmuridi wa tarqiyatuhu wa tarqihi bil acmaali ka xukmi man yamurru bil mari muridi ala jibaalin qalluusil judad fa ida zahida fihi salaka bihi xata yamurra bihi ala jibaalil fidda fa ida hadda fiha salaka bihi xata yamurra ala jibaali dahab fa ida zahida fiha salaka ala jibaali dahab summa aljawhara fa ida zahida fiha almurid awsalahu ila alxadrati alilahiya fa awqafahu bayna yadayhi min geyri xijaabin fa ida daaqa ma fihi ahlu tilka alxadra zahida fi naciimi daarayni wa hunaka qadamun ala alwuqufi bayna yaday illahi cheyan abadan wa amma bi geyri cheikhin fala yucrafu axadun yaxruju min wartaati dunya wala kaana min aclami nnaasi binnuquuli fi saairi euh, ulum euh, Mawlana Cheikh Alxaaji Omar nee na itam anwaarul qudsiya téere bu am solo la tudd na fi ay yoon dafa wax ne taalibe bi am sëriñ euh, bu nekkee ak sëriñam sëriñam teg ko ci benn yoon Euh, nee na dafa wara yaru ci yaru nu sëriñ bi di def ay jëf yu rafet léegi lu feeñ ci moom rekk ci xeetu fatxu mu nëbb ko pour am bu gën a euh, foor boobu nee na mu ngi mel ni waa joo xam ne ni dañ ko rombaloo ci montagne boo xam ne ay montagne xeer la nit kuy romb ba jaar ci montagne yoo xam ne ay xeer la gis nga bu dëddoo xeer yooyu te continuer yoonam dana dem ba yegg ci montagne boo xam ne xaalis la maanaam argent bu ca toogee looloy doon cëram mais bu ci dëddoo continuer doxam dana dem ba yegg ci montagne boo xam ne or la en or bu ko doyloowee toog waaye bu dee xeeb na loolu continuer dana dem ba yegg ci montagne boo xam ne diamant la Euh, bu fa toogee toog na waaye bu dëddoo loolu xam ne yàlla am na lu ëpp loolu léegi nag volonté boobu mooy dem ba yóbbu ko ci xadra yàlla yàlla nag defe naa ku ko am di nga xam ne moo gën jama moo gën montagne or moo gën montagne argent moo gën montagne bronze kon ndekete taalibe bi nu yitteem toll ci jëm ci yàlla rek foofu lay yem kon xijaab yi fekk yaa ngi koy yi maanaam accessoire yi nekk ci sa kanam muy darajaak turag mboolook yooyu yëpp ay xijaab la yoo xam ne ay montagne yu taxaw ci sa kaw la boo ko xeebee jëm ca kanam rek à long terme di nga amaat lu ëpp lool ba ba ngay taxaw ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala mu ne nag wa amma bi geyri cheikhi boo amul nag sëriñ fala yacrifu ahadun yaxruju min ci dunia d'ailleurs waxuma sax ay montagne bronze ak jamaak kii meew doof mën a jóge fi nga toog da ngay jullee ko woor mais 40 ans nii rek ngay mel ñu ne xanaa dafa jàngul ba am xam-xam mu ne walaw kaana min alami nnaasi bin nuquuli fi saairi al ulum donte yaa gën a mokkal ñëpp texte yi mais da dul am lumière bu yóbbu sa ruux lii nag bu ko nit ñi xamoon temps bi ñu nar a attardé wu ci werante ak yu mel noonu uti ji sëriñ bu leen defar daf koy gën boo xam ne yéenay bokk jamono wa qaala fi mawdicin axar fasluk yaa axi ala yadi cheikhin yaqtau ala iqaka aw yuqbilaha ila xayrin wa illa fa man laazamaka fa min laazimika kasratu alqawaatic xata tamuuta wa qad cajaza al akaabiru fadlan an mislika an yacrifuu tariqa qatca calaa'iqihim bi anfusihim min gayri cheikhin falam yaqdiruu falaa yazaalu cheikhu yamuruka bi izalati alawaiqi waxidan bada waxidin xata laa yabqa illa waxida bi qawlika bi qawlin laka azil azilhu wa ha anta wa xadra rabb azilhu wa ha anta wa xadrata rabbik wa taxtaaju ya axi ila tuuli zamanin wa sabrin ala mamuraati cheikhik wa galibi nnaas yasluku altariq wa yamullu fala yaxsulu min qatci lalaaiqi mu wax ne kon yow jàmm bi euh, wax na beneen palaas ci anwaarul qudsiya ne du mën a ñàkk nag nga uti sëriñ boo xam ne xijaab yi nekk sa digganteeg sa xadara borom moo la koy daggal te mooy bëgg ngistal bëgg ku la gis bëgg feebaru xol yooyu moom moo koy dagg mais faw nga jaar ci loxo ab sëriñ boo xam ne yar na boppam ba noppi ci boppam niñ ko passé léegi boo deful loolu nag euh, bu boobaa loo fi gën a yàgg rek gën a nekk ci jafe-jafe ndax euh, xawaati yooyu muy signe de rupture yooyu nga xam ne ay entrave la ci yow mi jëm ci yoonu yàlla euh, ku ne xam ne ne route nationale boo ci jaar am na lu ñuy wax ay doodaan Euh, léeg-léeg mu yàq oto mais lii moom ëpp na doo daan entrave la tudd miir bu rëy lañuy ñuy tabax ci digg tali bi fan ngay jaar yooyu nga xam ne nag lu sa oto gaaw-gaaw vitesse bi loolu mën na ko arrêté mu ne fawwu nag nga dem dagg loolu te bul foog ne pexe mu rëy ak rafet njort moo tax nga mën koo dagg parce que même akaabirul aarifiina yi d'accord nañ ne loolu kenn mënu koo dagg lu dul nga wuti ji sëriñ sëriñ boo gis ba ñu naw ko wala nitu diine mu ngi ay jikko ci boppam yoo xam ne gënalu ko neexu ko mu ngi lijjanti moom fan la koy dagge fan lay dindee jikko yooyu fan la koy enlever nee na massa yow mii nga xam ne ab taalibe kese bu dee sëriñ si gën a mag ñu ngi lijjanti ñoom seen entrave yooyu lan moo koy enlever massa yow mi nga xam ne jàngoo xamoo dara soriwoo ci tarbiya ci xadra yàlla kon demal nga sonni ji ci uti sëriñ bu ko defee kooku dindil la entrave yooyu waaxidan baada waaxidin un à un di dindi xijaab yi benn par benn moo tax nga gis kuy def tarbiya dem am fa ñaari weer wala ñetti weer wala nga xam sëriñ benn at foog ne yegg nga fekk boo wattuwul xijaab yi dox ci diggante xadra yàlla ak nit benn bi rek pour enlever que mën na jël ci yow dix ans ba ba ngay yegg ci beneen dimension boobu itam nga war ko enlever mën na jër jur dix ans te Seydi Ahmed Tidiane nee na soixante cinq mille hijab la hijab yooyu nag nga xam ne moom ngay dindi ba mu set huit yàlla soog laa recevoir te yow benn sax dañagu ci kañ ngay yegg ci yàlla te loolu ku ne xam ne ne sëriñ moo koy dindi ci yow nit tarbiya mën naa foor ba tax fukk balaa fukki at wala balaa juróomi at mboolem hijab yi ñu wax mu dañ mbaa li ci ëpp dañ waaye mu ngi aju ci sa volonté ak coobare yàlla nag ak coobare yàlla mais nee na sëriñ bi du dañ ci di la tarbiya moo xam nag ban façon tarbiya la ci zikr wala ci liggéey loola wala ci almusaahaba muy ànd ak moom rek compagnonnage ba di dindi xijaab par benn nga yëg ne yaa ngi gën a baax di yëg ne yaa ngi gën a sell di yëg ne yaa ngi gën a doon nitu yàlla di dem nee na di dem ba mu jéggi mu ne la ha wa ha anta wa xadarata rabbi dem ba ne la duggal xadara yàllaa ngi nii mooy sëriñ bu la tarbiya sa loxo ba yóbbu la ci xadara yàlla ne la nag toogal loo am loo fa am nag yaa ko may sa bopp mu ne wa taxtaaju yaa axi ila tuuli zamanin wa sabrin ala mararati cheikhika ku ne xam na ne loolu nag pour nga àgg fa sëriñ bi di enlever xijaab yi benn par benn xam nga ne loo laaj na benn dure durée de temps ila zamanin tawilin maanaam loolu presque sax xaw ngaa wax ne xajul ci dundu nit bu ci yàlla jàppul waaye itam wa sabrin faw nga muñ ala mararaati cheikhika ci ala mamuraati cheikhika ci ay say ordonance su sëriñ ni nga xamee ne ordonance bi da nga koy jël médicament par médicament ba ba ngay wér yow mi amee ay feebar itam ak ay xijaab faw du mën a ñàkk ngay déglu waxu sëriñ bi mun naan lan del def lii del bàyyi lii waaw léegi del def lii del bàyyi lii est-ce que ki dee mën na la ko defal faw sëriñ bi la koy defal mooy kii dund ku ku ne xam na ne maftu alayhi mën naa wax ak ñi dee ñu koy digal di ko tere mais yow mi nga xam ne yaa ngi xijaab yi kan moo lay digal moo tax ki dem ci bàmmeel ne bàmmeel ba mooy sëriñam mën na mën na ko jàppe sëriñ mais nag tarbiya bii du ko am te boobaa kon moo tax dafay déconseiller nit pour mu xeeb ñoñ jamonoom loolu musiba bu rëy la te wa nas ko tariqa wa yumillu fala yaxsula fala yaxsulu min qatci alaiqi ala tail nee na nag malheureusement li ëpp ci nit ñi dañuy sóobu yoonu yàlla di tarbiyewu di tarbiyewu ba yàgg ñu découragé parce que tarbiya temps bi muy jël xëy na bari na wala léeg-léeg sëriñ bi digal leen loo xam ne xëy na day diis ci seen xol ñuy day naagal ba yàqu lañu ñu jotoon a def mu ngi mel ni rek ku amee benn buum euh, benn buum war a yéeg ci euh, ci kaw ñu sànni la ko ngay marañu di yéeg di yéeg daj ci coono bu ne ku ne xam ne ne yéeg ci corde dafa metti nga yéeg nag ba ca digg ba nga xam ne xaajal nga ko wala li la dese sax bareetul nga ne man je suis fatigué looy def rocci paaka bi nga yoroon dagg buum gi fooy delluwaat fi nga jugee léegi nag effort bi nga daj boobu ba tey boo watul marañ nga fukki at wala ñeent fukki at da ngay delluwaat à zéro ba mel ni ku masul a tàmbali looloo tax nag kenn du jëm ci yàlla lu dul nga am endurance kenn du jëm ci yàlla nga am patience nga yar sa bakkan ba sëriñ bi lépp lum la digal donte metti na ci sa bakkan mais yow yaay xam ne yow lay sa intérêt mu ngi mel ni ki am benn maladie boo xam ne mu ngi dugg ci yaramam di yaatu ñu ne ko mu dem ci docteur bi docteur bi ne ko benn chirurgien ne ko faw ñu opérer ko defal la opération chirurgicale pour génne maladie bi faj ko nga dee fuuyu ne kenn du dagg sama yaram xam nga da ngay feebar rek di nga dem ba maladie boobu dina la rey waaye boo accepté métit bi muñ ko ñu anesthésier ko dagg génne loolu fajal la ko quelque temps ngay dem ñu lay defal pansement day dem ba léget ba boo wattuwul sax dana dem ba doo ko gisati loolu mooy xijaab yi kon sëriñ bi lim lay sant bu méttee ci yow itam jàppe ko opération chirurgicale boobu yow lay sa njariñ waaye moom wàññiwu ko dara loolu nag yàlla ñu ci yàlla soob la Mawlana Xaaji Omar loolu lañ doon jàngal ci anwaarul qudsiya yàlla yàlla fayal ñu ko bi maxdi fadli wa juudi yi ñu ngi yemale foofu dars bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu